juróom-ñaari weer ñu koy xaar juróom-ñaari weer waa jiy daw di teggi juróom-ñaari weer muy dugg ci tunnel yi juróom-ñaari weer muy waaf nanguwul def déclaration de politique générale tey ji lañu gaaral ca jam ñaajo nee ñu mooy projet bi projet bo xamné dañu ko jënd té ka ñëw diko présenter ab expert privé la expert privé bobu ci fàttali rek mo doon expert bi doon xalamal Macky Sall ci PSE bi mu xalamalé Macky Sall ba mu jëli jajjam sëriñam baxna tay ji gaduna Sonko ak jomay moom Victor Ndiaye li am solo mooy bisug tey bi ku ne xam na ne daanaka campagne électorale la parce que la xewoon foofu ca jam ñaajo ku ne xam na ne du vision waaye ab mascarade la woon daanaka ab xumbeel gu ñu organiser waaye yéen biir na leen ne plan buy soqali réew plan buy defar réew dee su ko roccee ci ay tiroiru cabinet dégg nañu ko sax muy junj di wax waxu Japon waaye ku ne xam na ne Japon ay nit ñu xam fa ñu jëm ay nit ñu gëm seen bopp xalaat bu ñu àndandoo maase xalaat bu ñëpp joxe seen bopp moom moo tëgg tey ji doole ji réew moomu Japon am kon li wér te wóor mooy ñi ñu jàkkaar lool ci njublang la ñu nekk ci naxe mbaay la ñu nekk parce que plan bi ñu présenté tey ji seen plan la ñoom waaye li may wax rek du plan wu ñiy toltolaan du plan wu maçon yi du plan wu mécanicien yi du plan wu marchand ambulant yi waaye du plan wu menuisier yi plan boobu ñu gaaral tey jii plan la boo xam ne dañu ko tibbe te biir ne ñépp ñuy gëstu ne ci plan Macky Sall lañu ko copier muy plan Sénégal émergent dem nañu sax ba ci nañu ko pàcc pàccale ci juróomi at ci fukki at comme ay mbabba daara lañu jéemuñu ko soppar ñi sax noonu lañ ko ca bàyyee pour wane degré de nullardise bi nga xam ne moo nekk ci ñoom li wóor mooy laaj bi sénégalais yépp di laaj xam ngeen ne moo taxoon ñu yóbbu ma ci alkaati yi chiffre ya ñu ma doon laaj moom laa dellu di laajte waaw li ñu ñu présenté tey fan lañu sukkandiku bëgg naa xam ndax ci chiffre ya ñu falsifié woon te génnagul foofu lañu sukkandiku walla chiffre ya nga xam ne mom lañu ñu falsifier a ñoy ci chiffres yoy lañu ñu sukkandiku la question elle est extrêmement importante et war nañ ñu ci tontu chiffres yi ñu basé wu pour jox ñu projet Sénégal 2050. ndax ci chiffres yi Cour des comptes génneegul la ñu ko tibbe wala ndax ci chiffres yi Ousmane Sonko doon wax ne données yi ñu njublang la ca données yooyu lañu ñu yaakaar naa ne duñ ñu ci gaaw a tontu mais li wóor rek mooy li ñu ñu jox tey ji ay kàddu la di kàddu làmbaatu kaddug ñu télé kaddug ñu amul vision kaddug ñoo xam ne juróom-ñett fukki sénégalais ak juróom-benn di ay jeunes sénégalais seen bakkan daanu na ci toolu xale bi ñu nekk ay martyrs lan moo taxoon ñu doon dugal seen pas-pas lan moo taxoon xale yooyu engagé wu nekk ci mbedd mi di xeex ba seen bakkan rot dañu leen digoon ne dafa am projet waaye tey jii biir na sénégalais yépp

la preuve consultant privé moo taxaw présenté ko Sénégalais yi xanaa kay werante xuuxaan mais pour wane ne Ousmane Sonko amul xam-xam pour wane ne Ousmane Sonko day lambat bu féké ne da nga né da nga am projet way way xanaa di nga ñu wax naka nga koy financer dégg ci yéen nu ñu wax ne noonu la ñu koy financé kenn may fàtte li ne ci biir document bi wax nañu la stratégie nationale boobu ci 2025 ak 2029 y a 18 000 milliards fukki des milliards ak juróom ñett yoo xam ne dañ ko war lebi ñoom ñi doon joy leb tey jii champion leb ñoom ñi doon wax ne réew mi dañu ko tayle tey jii Ousmane Sonko ak son président délégué auprès du premier sinistre ñoo dàq leb Ismaïla Yassine